salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar léegi leer na nañ ñi onze yi génn na fukk ak benn yi war a jàkkaarloo ak ñii di waa Égypte loolee nag dix-neuf heures et demi la match ba di door waaye li leen King Ouse Ngary TV waxoon Aliou Cissé soppiwu ci dara yéen ñëpp xam ngeen ni kat équipe buy gagné kenn du ko soppi moo tax Aliou Cissé daal ña départoon ca final ba ñooñee la wóoluwaat départ leen tey ca kan ya kii di Edouard Mendy moo fa nekk défense ba ñeent ñoo fay taxaw Kalidou Koulibaly mooy feggoo ak Abdou Lahad Diallo ca latéral ya kii di Saliou Ciss ak Bouna Sarr ñoo fay nekk milieu de terrain Nampalys Mendy ak Cheikhou Kouyaté ak kii di Idrissa Gana Gueye ca attaque ba Ismaïla Sarr Sadio Mané ak kii di Famara Diédhiou ñoo fay nekk kon ku gis ni Aliou Cissé classé rek nga xam ne taxawaay bii lay taxaw muy 4 3 kon nag nañu ñaanal équipe nationale bu Sénégal mu am ndam waaye sunu wujj yi ñu war a jàkkaar lool muy ñii di waa ñoom it seen onze ba génn na waaye la ca betti moo de kii di gabaskikat kat départul titulaire El wi moom moo départ ci fàttali kii di Gabaski ba muy ñëw ca Coupe d'Afrique ba dafa ñëw nekk troisième gardien dafa dugg rek doxal waaye premier gardien bi mooy El wi tey moo départ waaye nag Mohamed Salah ak kii di El Neni ak ñoom kii di Trezeguet ñëpp ña nga ca biir waaye loolee lépp nag ñun tiituñu ko nañu naanal équipe nationale bu ngeen gisee nag stade ba jamono jii fees na dell waa Égypte dañoo nar a yëngal gësam waaye ñun it nañu yëngal gësëm fii ba Sénégal am ndam gaañu loolee mooy onze officiels yi kon ñii ñoo war a jàkkaarloo ak Égypte bu dix-neuf heures et demi jotee gaañi nag bu leen tiit match yooyee yëpp di am ci Afrique bu jeexee dinañ leen indil résultat yi ba noppi joxaat leen xibaar yi mujj jëm ci tàggat yaram waaye tey nag mën naa guddee ndax dañu ko bëgg a boole ak résultat yu ñu jëlee ci Afrique jox leen lépp loole lépp nag xam naa bu mat Sénégal bi jeexee dinañ leen ko jox jaa ngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah.